professeur mu mel ni feebar bi mu ngi fii muy coronavirus bi ñi jàpp ne waaye teewul am na ñuy def ay lëmbër ci ndax ku ci mel ni faux médecin bee nga xamante ne jàppoon nañ temps yi muy Amadou Samba ay ay say sox yaa ngi naan moom du ku ñu war a jàpp tëj waaye dañ ko war a faj ndax àndoon ak xelam loolu ko ñooy dogal rek Euh, di def yoon ñu mën a xàmmee nga xam ni mooy sàmba euh, ci wàllu wér xelam ndax soo ko seetloo bu baax da xam ni kii moom euh, dese na xam ni ndax nit dëgg man nit ku yemb du def lépp li mu def donc loolu xam-xam a tax ma wax ma bëgg ñi xam ni ñoom ñoo ko jàpp te war ko àtte ñu sóoraale loolu ndax kii moom li tubaab bi wax mitbal la maanaam da ci doon wut daraja euh, euh, mais xel mi xel mi yëpp nekkul ci moom te soo gëstuwoo ci expertise da nga xam ni sàmm ci boppam wéru loolu moom man maay dogal ndax yoon moom moo fi nekk waaye dama bëgg rek yoon sóoraale loolu ni dana bari bari nañu bari ñu xam ne duñ leen di jàpp ñu ñu def jéey ju bari fekk ni ñoom seenu xel des loolu laa bëgg loolu laa bëgg a bëggoon a wax ci li ma wax sànq te bari na ci réew bari na ci réew yoo xam ne wér dox ci ci biir kuréel yi léegi-léegi ñu am daraja ju bari wala ñu dénk leen suñu bopp fekk ñoom ci seen bopp wér ndax lu moom dafa dafa lu ndax wala dafa defe ni eh, eh, soo nee soo nee a wérul rek ñu ne ah kii doful te dof dafa bari am na ki daanu ci saret am na ki tëlbëti am na ki yëy sagar ñoom ñëpp nag ñuy ay niveau yoo xam ni ci ci ñàkk ñàkk ñàkk yoo xam ni foo jaar nga sóoraale su fekkee ni yaa ngi jàkkaarloo nit loolu may woote ni moom yërmande war a dox sax ci ci ci ci ci Samba ndax def na ju ju doy waar waaye su wëtuwul ña ko jox dara ja ba mu xuus ci seen biir ñooña ci seen bopp ñoom ñoom lañ war a wax pas ci bopp d' accord euh, professeur euh, boo nee xëy na Samba dafa manqué wala wérul est ce que du jàppee ree ñu bari ndax koo xam te ne euh, ci at ci at yàgg mu ngi wax de médecin alors que du médecin di ci am ay marché di ci ay business di ci nax ay nit di ci ci ci utiliser ay cachet spécialiste yoo xamante ne ñu mag la fi ndax dina neex a gëm ñu ne Samba xam na xam xam nga xam nga su fekkee santé mentale maanaam wéru xel du sa spécialisé du sa du sa xam-xam xam euh, mën naa am nga weddi loolu nga ni mais kii xaalis bi ñuy jël nit ñi ak ni naxe mais dafa desew a aw xam bi maanaam xel maa ngi fii ci def jiga waaye personalité bi ci boppam um wéru loolu laa leen bëgg a wax xam naa ni danaa dellu si waxtu ci lu yaatu wax leen façon euh, nit ku mel noonu euh, nan la mais li ma li ma bëgg a wax mooy maanaam yéen yéen a ngi seet xaalis bu mu am ak oto bu muy dawal ak anila bu mu sol yéen loolu ngeen defe ni nit ku ko làmp rek nit la te nit weesu na loolu nit dana toll foo xam ni eh, ci eh, ab xelam mën naa def lu bari loo xam ne day nuroog jël nit te fekk du nit loolu laa leen bëgg a wax def nañ ci seen télévision yi ñoo leen di woo ñuy wax am na ci ñoo xam ni sax su ñi ngi bëgg a jël réew bi te ñoo xam ni soo ko soo leen seetloo bu baax xam ni ñii ci seen wax ak seen i am na lu leen dese te lu mel ni responsabilité soo demee ba ba di ko yor duñ laa war a càmbar ba xool ba xam yow mat nga li nga doon wala te maanaam nit nga nite te nite lu jafe doon naa fi wax ca at yële ñaar fukki at nañu ndëmbal réew ndax nit ci boppam dana ñàkk wér ci wàllu xel waaye kuréel aussi dana dox ndax man yaakaar naa ni sàmba su ma nee xuus ci biiri kuréel ba di fa am daraja ba di ñëw ci seen télévision di wax sàmba du moom du responsabilité ña mu doon seen responsabilité mooy ña ko ñu ko ëmb jox ko daraja ñoom ñoo am responsabilité ñoom aussi am na lu lekk liñ ko ba liñ ko tane liñ ko tane bariwul su fekkee ni dem ba seen ci seen bopp am lu leen manqué euh, bu weesoo média yooyu sax euh, moom mi di foyoo docteur bi di Amadou Samba gis nañ ko ci ay photo yu bari mu bokk ci convergence des cadres républicains ci seen i ñoo ci seen i euh, festivités yoo xamante ne ñu ngi ko doon amal loo mën a wax tamit ki loolu bu fekkee ne mun nañu dem na sax ba yegg ci sommet Mariam am na ci responsabilité ça veut dire que ndaje moom ndaje ndaje mooma lan la ñuy ci su fekkee ne dox ak wax la rek ah ku xelam nekkul ci moom ndax man na loolu mais nag def naa ni duñoo weesu foofu suñu demee ba lay jox responsabilité affaire politique bi xam ni moom ku ne mën na ma mën na lu ne mën na fa def loolu moom des koy de duñ koy weesu ndax ndaje yi ci seen bopp kuréel yi ci seen bopp surtout kuréelu politique yi li ñuy séentu ci nit walla ñu koy wut ci nit dafa dafa da koo taxut a bari ndax wax rek dox ak wax carte ak cat njaay ko nag lakk mais lu lu weesu loolu nag la ñu séentu ci nit lu weesu soo bëggee jox nit responsabilité ñu dégg ko lu mel ni wér gu yaramu nit wala ñu dégg ko am réew loolal moom dafa lakk lu weesu li xam ne moom moom la kuréel politique yi di laaj nit loo tax ñoom ci seen bo am nañu responsabilité bu bari ndax looloo ko dara ja aussi su fekkee ni moom dafa xuus ànd ak kilifa nit ñi suñ ko gisee duñu ko weddi wala duñ koy ragala weddi donc balañ ko porter plainte ci ñoo ñoom seen bopp ñoom ci seen bopp ñoom ñoom la ñu war a seet affaire ba pare bala ñoo seet affaire u Samba ndax ñoom ñoo jox Samba dara ji ñoo ko jox gëdd gi ndax ñoo tax nit ñi ci seen bopp suñ ko séenee duñ duñ koy ragal wala ñu rus ko wala ñu xam ne ñu ni soo ko soo ko waxee sax su wata wëpp dara fekk la ci donc ña ko jox dara ñoom ci seen bopp amaana tane wuñ ko waaye am nañ ci responsabilité aussi junj ko sànq nee nga nit mun na di sol yére yi rafet yore oto di jege ay nit lu am dara jate du fekk mu tey kaw Amadou Samba boo ko doon bëgg a catégoriser ci ban fànn ci ñi nga xamante ne ànd ñu seen sabab koy catégoriser lu xam nga ci tubaab du ñuy wax mythomane la maanaam daal moom day sos day mel ni kuy gént rek ndax dafa xeeb boppam dëkk donc lépp loo xam ni da koy jox daraja dana ko sos wane ko te dana ci wuti pexe kenn mënta wax sax day fen ndax fen dafa laaj eh, dafa laaj ay feem yoo xam ne surtout sax moom yeggu fa ndax lu ci ëpp soo soo ko seetloo eh, soo mënee seet fen lu teew la loo xam ni su nit mën a ràññee rek su wutul mu mu xam ni lii du dëgg donc eh, mythomane nag soo koy gëstu foo jaar nga da nga sori ci nit ndax léeg-léeg ñu ni ca ak ah, ca ca ngoneem sax foofa ngay dem pour gëstu ko ndax gone soo nekkee gone léeg-léeg da euh, am na ci at yoo xam ne soo fa tolloo da ngay xaw a mel ni ku mythomane ndax da ngay xam nga xale dana la wax ni sama am na gaynde nga xale la xamul luy gaynde xamul leneen waaye xam at yooyu nga wax lu mel noonu euh, ndax sam xel nekk ci yow at yooyu da nga war weesu euh, soo demee ba am fanweer at soo demee ba am Euh, juróom-benni at war nga beesu àddina euh, wax jooju ak xel moomu waaye am na ñoo xam ne ci xel moomu lañu des ba tey xelu xale boobu dafa des ci ñoom ba tey donc noonu lañ koy gëstu ci sama wàllu xam-xam donc dama ni la moom yébbul li wolof di wax dese na xam bi am na loo xam soo demoon ci ñu xam ni ñoo ko meññ wala ay dëndoo da nga da fa gis dañ leen taal ay jikko ci moom ak ay feeb ci moom euh, feeb xam ne ci moom yow dana la mën a jox tegtal ci nit ñi am na lu ko dese. professeur lan ngay tàggoo. li may tàggoo mooy di euh, encore ñi xam ni ñoo liggéey ci euh, li xam ni mooy jàngoro ji tiital àdduna di ñaan bañ a nit ñi jóg taxawal ci seet bopp. te baña a yóbbu fet bañ a euh, euh, euh, tam ñi leen wër wala ñu leen di bul xataal di ñaan ñi xam ne ñoo nekk ci biir kër yi di ay kilifa aussi ñu wàññi seen xadar ndax seetlu nañu ñi ni lën bu mel noonu suwatul xadar mën na caa am ba ñii di dóore wala ñuy sàggane wala ñuy leneen ndax li tubaab di wax violence gis nañu bari na ci biir kër yi il faut que borom kër yi aussi ànd ak seet sago xam ni metti la xam nañ ko waaye nañ ànd ak yërmande rek ba aar gone yi ba aar jigéen ñi loolu ci wax yéen journaliste yi nag ngi leen di sargal aussi waaye na ngeen utimili di di wax wax ji ci anam yoo xam ni anam yu leer la ndax seetlu nañ ni eh, feebar bi suñu réew dox na ci jéego yu bari yoo xam ni ndax na ñu ngi am yaakaar ci ni e, nit mën na ci du ba pare wér ndax xam-xam wane na ni e, nit am na chance e, treize fois wér ci jàngoro ji te maanaam jàngoro ji mën na ci li li li ko ci wér ci moo gën a yomb mu rey la fukki yoon ak fukki yoon ak ñett donc il faut que ngeen dalal xel xel nit ñi ni leen ñi ngi dox borom xam-xam yaa ngi ci dox ñi ngi gëstu te lu mel ni mos naa am ci yeneen réew te réew ñi génn nañ ci donc di sargal aussi e, ñëpp ñu xam ni jël nañ décision muy gouvernement bi te décision yooyu ñu ñuy ñaan rek ñu te ñu teg ñu teg ko ci anam yu rafet ba ñu génn ci jàmm. ñu ngi lay jëfandikoo bu Thank you.